fas yéene am solo. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ni ngeen ko xamee ñu ngi ci àllarba maanaam mercredi 15 septembre 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen ci plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 15 septembre 2021 dañuy wax yëglikaay suñu lamb leen ni xëy doore ko. yëglikaay bi nag tey moom xëta mu njëkkam ca xëy fesal maanaam moo di Ama Baldé sëll bu ndaw doomu pikin fa mu nekk nag ca France fa ñuy wax Bordeaux daal fa la Ama Baldé seqe waxtaan ak ka nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé ba mu seqee ak moom waxtaan nag moom Ama la mu gis daal wala la mu jàpp daal ne na digganteem ak Modou Lo moom ne na dara mënta tax ba duma ko gagné avec la manière ne na daan kese laa ko fas yéenee def donte nag Ama nangul na Modou Lo ak mbërëm parce que jàpp na ne mbër la moo xam ne moom champion vrai la mbër piir la waaye ne daal waat na daal ne lii di combat bi moom loo ci mën a dégg moom daan kese la ca jàpp moom Ama yemu ca na tamit li am ba des maanaam combat la ca dafa bëri lool lool amaana na làqu ca biir moom daa bëri te ne na défi bi moom kese moo ko mën a relever te itam nag ne mbir mi moom la ak Modou yemu ca ne bu xoolee mbooloo mi topp ci moom bari ga ñu bari te xaaruñ ci moom lenn lu dul mu daanal leen ka nga xam ne moo di Modou nangu la nga xam ne nii moo di roi des arènes ba ama daal tey waxtaan mu yaatoo yaatu seq na ko ak ka nga xam ne moom moo di Abdoulaye dembale ci sunu làmb daal di fa daal tëkku Modou Lo wax ko la nga xam ne moom la ko nar a def buñ ca yeggee ca mois de décembre xam ni tamit xëy na sampal Modou Lo ndënd du kenn ku dul mbay guy gi école ba da joon moom itam daal géntam yépp wala la muy rêvé ne na lenn kese la maanaam bés ñëw mu jàkkaarloog Modou Lo ñu seq lamb daal di bëre loolu waxi mbay guy gi la leneen loo xam ne ni dañ cay dem ab écrit la boo xam ne bañ ko sancee yàggul ñu naan ko kolobaan mbooloo yëglekaay bi dina ren moom boo xoolee seen début loo ci mën a dégg daal wala boog bañ leen sancee taxawal école ba yàggul waaye xam naa daal la ñu am ci ay défaite moo ëpp fuuf la ñu am ci ay victoire ndax yëglikaay bi ne cinq victoire la ñu am ak lu toll ci huit défaites suñu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne mu ngi làqu te yëglikaay bi nag nañ ci bàyyi xel mu war a am nag ci première journée wu làmb ji tombeek le 10 octobre bu ubbee war a dox ci diggante Kalmu Ndour ñu naan ko Grand Mbagnick ak Eumeu Sène Junior yëglikaay bi moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu mel ni ki daal soo bëggee dégg dëgg kon suñu làmb tey xëtam mu njëkk loolu moo fa gën a fës leneen loo xam ne nii dañ fay dem wala beneen yëglikaay muy les arènes les arènes moom boo bëggee dégg dëgg tey parcelle la xëy wan ñu ñaari doomi parcelle muy Modou loo le roi des arènes Papa Sow yëglikaay bi nee na soo bëggee dëgg-dëgg am na ñoo xam ne dañ daan wax naan làmb daal boo gàttee lool maanaam pour nga nekk ci champion day jafe waaye daa mel ni ñaar ñii moom weddi nañu mbir mooma ndax Modou ak Papa kenn du xool ci ñoom ab njoolaay waaye daan leen ci làmb day ah lu jafee-jafe la da ku ko bëgg da nga liggéey ba nga xam ne ni liggéey bu méttee métti da nga def moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal ñaari ndaama yii moom ay exceptionnel lañ ci mbir moom maanaam ñoom ñoom daal njoolaay boolewuleen ci làmb ay ndaama lañ waaye daal ñu téeñe lañu ñu dëgër fit ñoo xam ne daal mën nañu la ñuy def lool ñeneen ñaar ñoo xam ne ni wala keneen koo xam ne ni moom am njool la bokk ci làmb ji ñu naan ko Bombardier yëglikaay bi ne na daal maanaam atu yi nga xam ne nii maanaam moom la war a amee ngir nag gagné combat bi nga xam ne nii moo ko war a boole ak Jérôme la la le cinq septembre jëm ci wàllum MMA ba keneen koo xam ne nii ba tey mu ngi ci làmb ji yëglikaay bi ne na moom moo jiite association nationale des lutteurs Sénégal yëglikaay bi nag moo xëy tey di laaj lan mooy ay mission yi Gris doo dëgg dëgg dëgg ngir mu jëmale kuréel googu nga xam ne moom lañ ko dénk ca kanam keneen koo xam ne ni moom am na lu mu bëgg a doxal ba commencé na ca di ca dox muy Fatma Dia moom nag ab reporteru làmb la xale bu jigéen la nekk fa nga xam ne moo di ca kéwél Kewel faat ma daal tournoi ba nga xam ne ni daal lam ca bëgg a boole daal wala boog la ko tax a jóg mooy bokk na ci wàllum violence bi mu wàññi ko moo xam ca fans club yi laag reporter yaag mbër yàgg lépp mel ni ki daal loolu les arènes dikkal nañu ci lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci les arènes ca beref ya moom la munu xëy wan maanaam daje ba nga xam ne amoon na doxoon ci diggante CNG bi daal ak promoteur yi mel ni ki nag daal maanaam Issa Ndiaye ma nga xam ne wallum communication wala marketing moo ko feree daal démb daa meloon ni wala boog moom moo meloon ni ko xam ne daal moo taxawoon taxawaayu imam ba Malick ñi ngi tamit moom daal ka mu doon plaidel doon ko layal du kenn ku dul ki nga xam ne moo di Isabel Samb kenn koo xam ne tamit am na ku mu doon layal muy màng ka mu doon layal moom moo di mbayang luum yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu ko wax taxawaayu promoteur yi nag Fallou Ndiaye nga xëy tey di ko leeral Fallou ne na absence bi daal ñàkk a teew gi nekkul ne dañoo boycotté wala lu metti la daa jàpp ne daal soo bëggee dégg dëgg daal maanaam ku ci ne xëy na amoon nga ay ndog ndax ne moom ci boppam la ko xoole ndax moom ne na amoon na empêchement boo xam ne moo ko terewoon a ñëw démb fa nga xam wala boog moo ko terewoon a dugg si ca ndaje moom a nga xam ne waa CNG boote woon nan ko mu mel ni kon daal tey loolu moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi les arènes sunu làmb jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglekaay yi tey loolu lañ ñu indil muy sunu làmb les arènes ah loolu lañ ñu indil tey waaye nag tey ku ne xam ne ñu ngi la 15 septembre démb nekkoon le 14 septembre 14 septembre nag buñ ko waxee sunu xel day dem ci ku nga xam ne ah góor gu baax la woon nekkoon wàlliwu yàlla Kamal ñu naan ko maam Abdoul Aziz Sy baax nekk xalifa maam Maodo si ay at yu yàgg a yàgg ba yàlla jël ko 1997 démb nekkoon bésu anniversaire am te yaakaar naa ne loolu démb ah ñu baree baree bare fàttaliku nañ ko mu nekkoon koo xam ne bi mu génnee àddina 1997 bés boobu ku ko fekkee da xam ne yàlla ku la ne rek ñëpp a yem loolu manta ne yàlla li mu maye yemalewu ko de am na ñoo xam ne nii tolloo mantam ndax bu ñëpp tolloo woon am ñu gedd seen cër te defe naa bés boobu ku ko fekkee di nga xam ne dabbaax mi am na lu ko yàlla may ndax kër bés boobu la ñu dund ci Sénégal génn àddinaam démb nekkoon 14 wala boog nekkoon 24 24e édition wu anniversaire wu génn àddinaam ñaar fukki ak ñeent kon moo lay wan ne ah ñu ñaan yàlla yàlla taf ñu si barkeem waaye li may wax daal mooy ay waxam yaakaar naa boo koy déglu ko dégluwaat war nañ ci jàngataat lu baree baree baree bari ñun waa Sénégal dafa mel ni li mu doon wax 1997 ak at yoo ko jiitu daa mel ni mooy dox tey ci réew mi rek waxoon na ak état bi wax ak député yi. wax ak ma sëriñ si wax ak taalibi yi wax ak sénégalais yi wax ak peuple bi wax ak àddina bi waaye nañ dégluwaat wax ji waaw ñu bàyyi xeexante bi bàyyi yénente lu ñaaw li bàyyi waxante lu ñaaw li yéen ñi ñu jiite tamit ngeen seet seen diggante ak seen tra yi bammel defe naa kere boo dégloo kaset bi nga xam ne mu ngi doon jiitee wala boog ñu ngi tëral président Lamine Gueye di ko jullee dégg ngeen kere kàddu ya mu wax ah kooku defe naa ne yàlla nañu yàlla taf si barkeem te yàlla dimbali ñu ba li mu doon wax yàlla dimbali ñu ba man koo jëfe ndax nag ndigal jëfe te ndigal li mu daan joxe lu am solo la te daawu ko jox kii ne werdu tijaan la yor wala werdu xaadir wala wu wala mu laayan da ko doon jox jullit yépp moom noonu la doon doxee yal nañu yàlla taf si barkeem di nuyu xalifaam di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi Serigne Maodo si da baax di nuyu njabootu Tiwaawoon bi yëpp rawatina xalifa bi sëñ Babacar si Mansour aussitôt di ci profité di nuyu waale sëñ Muntaxa Mbàkke borom mbég mi borom la 18 safar du mën a ñàkk léegi nag damay jóge foofu ñëw ak yéen du ma fa sax jóge ndax foofu moom fa la ñuy ne ba ilaa yawmi diini waaye kon dañuy continuer ak yéen ci journaux yi sunu làmb tey fa la ñuy njëkki gis ngeen Ama Baldé moomu ci biir géew bi muy daw yaram wa tàng na Ama nag lu bees teq la Abdoulaye Dembélé moo ko décroché ci benn exclusivité depuis Bordeaux ca France Ama daal maanaam la mu wax Modou leer na nee na daal lu mën a xew ah dama koy daan avec la manière lii la wax na loolu la wax de na na parce que nag nee na la làqu ca combat baa bëri loolu nag suñ ko déggee ça veut dire que Ama Baldé ku ko xam ci làmb xam ne wax dëgg yàlla lu ko waaye mën a waxal doone Ama mbër mu ragal la doone Ama mbër muy dellu ginnaaw la doone Ama du mbër mu dogu Ama dogu na Ama ñeme na Ama day bëri Ama bu arbitre sifflé li mu gëm lay indi loolu nag defe naa ku mu ne ci yow am nga droit ne sama adversaire dama koy daan avec la manière parce que du Modou Lo la ko njëkk a wax mbër mu mu dajee lii la lay wax ba lu ko cay fekk fekk ko ci loolu nag mooy li ngay def nga gëm ko jox ko cër parce que bu ba moom bàyyi na xel ñi topp ci ginnaam ci mbooloo moo tax mu jàpp ne kon la mu leen tàmmaloon du ci dindi dara dara dara waaye nag liy jar a bàyyi xel ci wax ji mooy am na reconnaissance su Modou Lo parce que jàpp na ne Modou champion bu mag la te nag ku ko bëgg daan da ngay liggéey moo tax moom muy liggéey wax na dëgg Modou Lo ku ko bëgg daan ci làmb di nga liggéey boo ko séenee ak bindam nga yaakaar néew dafa néew doole ay waay bu ngeen laalante nga xam ne adversaire pire nga am xam naa Ama xam na loolu parce que olof na wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara waaye yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba bés ba lig ni ko laay daal di ko wax ne njar ndem nga tëgg yow ndax nag yàgg naa tëgg bés yu mag lig l'homme des grands événements noonu lañ ko noonu la ko suñu papa Bécaye Mbaye doo di wooyee ah le promoteur du continent noonu la demee Luc Nicolaï muy profité di nuyu doomam suma soppe Wili Wili maa ngi lay nuyu borom Mbour géej ah, bu ñu continuer ba tey keneen koo xam ne tamit ci biir yëglekaay bi gis ngeen ko noonu mu ngi dëkk Modou Lo mbay guy gi daal na reefam li muy gént mooy bëreeg Modou Lo man nag am nga si droit parce que mbër mu ndaw mu ne maanaam la muy bëgg mooy tey bëreek mbër mu mag rawatina ko yor roi des arènes te ku liggéey ci làmb ci jamono ji ne ba war a bëreeg Modou Lo am nga mérite yaa ngi ci yoon yaa ngi liggéey liggéeyal rek dem yaakaar naa ne di d'ici quelque temps dinañ xool ndax lancé bi nga ne da koy continuer wala déet waaye xam naa daal euh, loolu moom mooy li mu bëgg am nga si droit moo it mu ngi ci làmb bàyyeegut làmb kon loolu mooy waxi mbay Gouy Gui bu ñu fa jógee dañuy ñëw ci équipe boo xam ne ren lañ ko sanc wala boog yàggul est-ce que am na at muy kolobaan mbooloo parce que su ma jumul ñoom Sawru Fall ñoom Tonnerre ak ñu mel ni ki ñoo ko taxawal ginnaaw bi écurie Ndakaaru jógee écurie Ndakaaru ñu dem fusionné ak fas mais ni ki nag écurie ba ren bëri nañ bëri nañ ay combat parce que boo xoolee am na ñu tollu ci 13 combats mais victoire ya dafa a néew ka défaite ya 5 victoire la ñu am 8 défaite ah loolu nag dama naan euh, man dama leen di jaajëfal parce que écrit bi boo xoolee ren lañ ko sanc au moins bëri nañ treize combats am na écrit yu leen mag fuuf ren mënuñoo am sa dix combats ñoom ñu fexe ba bëree du treize combats ça veut dire que kon management bi baax na li ci des nag mooy ñu gën a liggéey ci résultat yi pour que comme ni ko seen entraîneur boobu waxee seen rêve mooy jëli sunu làmb door bi fii ak ñaari at loolu mooy liggéey Kalma Ndour Gagnaam Grand Mbagnick le 10 octobre mooy combat bi ñu fi dàqoon gis ngeen ko noonu ah ak waa. Euh, rent DKR ñoom Pape Sarr ñoom Jimbo ak ñoom Alain ma di leen nuyu di wax ne ñooñu moom waxu même man dama naan sax état du Sénégal même ñooñu tey bu ñu tëggee seen lamb ba pare dañoo war a yëkkat dara ko ndax ñoo xam dañoo jàpp seen lamb ba ci bés bañ ko war a bëri ñu leen lamb juratul am dara fa jógee ñëw les arènes les arènes moom ba tey parcelle la dugg wan ñu fa ñaari mbër le roi des arènes Modou Lo ngoon taxaw Papa Sow ngi noonu taxaw muy ñaar ñoo xam ne boo leen dee xool ci wàllu bind ay ndaama lañu yëglikaay bi nag moo tax mu samp ne na est que maanaam bu ñuy wax ne lamb njool ñii moom daa mel ni weddi nañu lool ndax nag ku ne xam na ne ci wàllum bind taxawaay papa euh, muudu njooluñu mais lu ci lawaay waay mën di wax fexe nañ ba ñoom bokk ci ñi nga xam ne tey ci ñi téye lamb lañ bokk ndax ku dem ba nekk roi des arènes kon yaa téye làmb muy Modou Lo te taxam ndaxam muudu njoolut boo ko comparé ak Bombardier Bombardier ko sut nga comparé ko ak Balla Gaye noonu nga comparé ko ak Lac de ba ci Gris Bordeaux waaye fexe na ba nekk roi des arènes ça veut dire que nag loolu dara mayugul gëm li ngay def nangoo tarbiyu et puis nangoo liggéey parce que euh, mbër li lay def vrai mbër un vrai champion jamono ji ngay nekk xale nga nangoo bëree nangoo daj ay coono waaw des fois sax nga bëri ji ñëw am problème mu kii reer ndax dégg nga mbëri ma fi dalal bëri ki dem kaaw si kaaw gur ne doxee na fi benn suur baari ndoon xaw ma jëm noonu di wëri mbappat te boobu yor sa cent franc jógee ba ndakaaru wolof nag ne na ku yàgg ci teen baag dala cay fekk sérom la baneer bombardier la vingt cinq atooy bombardier ngir mu gañe ñun daal atu yàgg mu amee atu mu ñàkk atu am na yàqin ne am nay atu ndax bombardier nekkul n'importe quelle personne ci sport Sénégal bii di làmb te itam yàgg naa génn di jongante ci bitim réew ci yeneen compétition yu bokkut ak sunu làmb ji kon ça veut dire que la muy def xam na ko teg na ko ci yoon li ñu koy ñaanal daal mooy yal na ko yàlla may ndam le 25 septembre ci digganteem ak Jérôme Le Banner ndax loolu MMA la ndax Jérôme ko waxee kon xam nga ça veut la kon loolu lañ koy ñaanal Gris yan taxawaay wala yan lan mooy ay mission ay mbiram ci association bi mu jiite ah mission yi daal mooy fexe daal man de bu ma ci amul lu ma koy digal dama ko daan na fexe ba ñi nga xam ne tey ñooy les lutteurs en activité mu fexe ba ku ci ne yéeg sa bopp ci kuréel gi mu yore moom Gris Bordeaux parce que loolu moo tax pour man ñu fal ko te waru caa yem képp kuy dund làmb sax laay wax parce que nag mbir boo ko jiitee moom fexeel ba la tax ñu teg la fa nga yow nga maanaam nga wane lu tax ñu teg la fa ba ña nga xam ne tey ñoo la fa teg bis bu dem jotee sax dañuy taxaw ne doo dem ndax des fois nga gis ñu fal nit ci benn poste mu war a dem nit ñene du dem parce que lu koy indi mooy ça veut dire que day dafa am nit ña njariñ kon giri loolu lañ koy ñaanal yàlla yàlla na réussir mission parce que tamit ku jiite kuréel loolu lañ lay ñaanal wala nga ak loo mën a jiite yàlla na nga réussir loolu tey moo fi dikkoon ci yëglikaay kaay muy sunu làmb les arènes di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq di wax que ni rek du mën a ñàkk làmb 100 pour ak Babacar moo xam euh, invité la moo xam interview ya moo xam reportage moo xam ci revue bii la Desideya bi 100 pour cent làmb lay doon di nuyu ñëpp di nuyu groupe Equivox TV yëpp aussitôt di nuyu xulle mi ne woon si caméra bi ak montage bi di ko ñaanal jàmm mais di nuyu tamit képp ku nga xam ne yaa ngi fi aussitôt comme ni ma di nuyu suñu euh, xale jigéen yi am na fi koo xam ne nii moom damaa yaakaar ne est-ce que moom tey bi mu xëyee ndékki na war ngeen ma wax turam de moom nu mu tudd sax yéen ñaan ak moom yow noo tudd yow Habib kooku nu mu tudd yow laay wax yow waaw fifi naan ah fifi ah Ndiaye Ndiaye James Diama sama deuxième femme Ndiaye la sant sama maam sant Ndiaye loolu rek xaw a jaxas affaire yi mais kon mooy loolu mais <laughs> alhamdulilah nuyu nañ ñëpp ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp wax di wax que ni Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm di nuyu ñu nga xam ne dañuy suivre à travers Equivox TV. ah euh, fan si club Equivox ak Babacar maa ngi leen di nuyu di nuyu 100 pour cent Babacar loolu lépp ay soppe la yoo nga xam ne ay kuréel la ñuy sopp Babacar di topp li muy def ak tamit waa Njaay production waa Njëng production waa Axlu Lamb waa Sunu làmb waa groupe baax ah ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee waaye nag di bëral nuyoo sama waa dëkk waa ak yaay rawatin waa ak yaay ca kanam yàlla na seen jàmm yàgg di nuyu sama maire de la commune muy maître Pape Sène président communauté sénégalaise des droits mag suma xarit di wax ne Sénégal yàlla na fi def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa ba suba incha allah rabbi